wax naa ko léegi na avec une forte délégation lool ci bis bi waaye taxaw lool ci bis bi jànkata borom jumaa ji loo indil masire man laxyaari lilaayi binnabi wala lii li xayri laay xawdu masiru asaabul jannati hum fiihaa xaaliduun ilayka yaa xayral bariyati salaam xadimika allati kafaytawul malaam salaam alayka abadan ma salaam fi l aali wal ashaabi rabbuna salaam xussa maqaaman دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام أنت الذي أخرجنا من السلام بك لنور من حباك بالكلام بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سينسى تمام أنت نبي ورسول والهمام بكر قياد السائلين باسم لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أصلا ترام جاد لنا باخن تعالى خن من عم بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كل خام وكل سحر والكتاب درهم نويت شكر وإليك بخلام وخير يا الجوامع الكلام حديتي قص كرما بالانسرام يا خيدا لي من هلالك المرام تبت لربي شاعرا بسن سام لك وقبله خبوت بي saam yaaraw ci mbooleem law li yaay sëriñ Walliyu sëriñ Fallu yaaraw ci mbooleem law li yaay sëriñ Fallilu yaay Mustafa yaay Muntaxa yaay ndey bu so baay mbàkke moom la réew mi taamu moo ne ci galas baayu mbeen nii la yéen ma juumoo alaaji fallu mbàkke daam yaay ki ko am fi dóor ba ma daal la ko am fi dóoru alaaji fallu sëriñ fallu ah maa ngi jéggalu lu ñëpp bokk la ci waa am mu doy ah mu doy da wax nga dëgg Cheikh Ibrahima Fall Lamp baabil muridiin Cheikh Ibra ku bëgg Cheikh Ibra Fall defal nii Cheikh Ibra Fall ku sopp Cheikh Ibra jugal taxaw ñu màggal daa bay maam seen Njaay Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibrahima Fall Baye Fall bi ah ñoo ngi jégalu balay se ñoo ngi jégalu bu ndeysaan Ahmadou Fall seer Njaay birim ji bii ma cangaay góor dëgg Cheikh Ibra Fall ku bëgg Cheikh Ibra Baay Fall yi Cheikh waaw kii ngeen dégg nag mooy jàngkatu borom jumaa ji Cheikh Mamadul Muntaxa bu jàng dañuy naan kii mooy jàngkatu borom jumaa ji ji waaye maa ngi joxaat wàccuwaay ak ziar alaaji Muso di jàmbaar lool alaaji Muso Gueye postu kër ay alaaji Muso Gueye bëgg lool Serigne Touba waaye fonk lool njaboot Serigne Touba di leen teral alaaji Muso Gueye maa ngi lay sant waaye maa ngi lay gërëm di ñaan Serigne Touba doon di say xéewal ci biir ak ci biti Cheikh Cheikh ñëwal Cheikh ñëwal Cheikh May ah ki may jugoon nag ah Cheikh Mbaye cey Cheikh Mbaye loo may nit balaa Serigne Cheikh di ñëw Cheikh Mbaye aouzu billahi mina seytaani rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha mina seytaani rajim rabbi u'iizuka min hamazaati shayaatiin wa u'iizu bika rabbi an yahduruun barke borom Tuubaa bismillahir rahmanir rahim سكني مناديك من حب ربي خديم من أخاطبه بسكري والحب ساسمي مساياك يا كل لدى الكل قد جلت ولكن عجلتني سحري ونجمي مقامات خير الخير خير ربي مغيبة فلتقرأ أنصرة النجم

كل فاسد وسره بعبدا خديما بلا هم من الله رب الأرز أبقي صلاتهم بنعيمه للمصطفى المهجر يمين وهكذا دنياي وأخرايا ففيهما لسلف الرزايا واجرم عذاب نارها الجملة من بها تعالى من أبناء سمن وجملة الإخوان من أخاربهم في ديني وفي دين ولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وخليا وسليما سرمدا على محمد وسيلة لك وليها حسن الختام عندك وتصرفي سرمدا

jujug mi ndeef ji aji neex na Mbàkke Seex Fallu Alaaji Fallu Mbàkke yaa Rasuulullaah yaa xar yoonu Makka Madina xarnu bi naan na ay mi lug sàppeena Alaaji Baara Mbàkke saana diina bay baa ko def Alaaji muy Alaaji ndijaaji di palaaji kaar sunu waaji ku sopp Sëriñ Fallu sooy dee tàbbi aljannatu laaj ku noonu jërëjëf ñoo ngi jéggalu bu baax di siyaare sëriñ bi yàlla guddal te wéral ko ak sëriñ Lamin ndax yàlla dogal na teewaay ñoom rek la ko yàlla jaare yàlla leen yàlla yokk te guddal seen fan sëñ Seydou ñu ngi lay bëggee sëñ Fallou Tine sëñ Cheikh yàlla leen yàlla yokk jërëjëf sëriñ Cheikh Mbaye waaye maa ngi doon wax léegi président Amadou Ba muy premier ministre maa ngi ko doon sant di ko gërëm moo yebal kee toog mooy doomi alaaji Mbaye jamu sëriñ Fall muy sëñ Xaadim Dia sëriñ Xaadim Dia la yebal ak sëñ Omar ak sëñ Xaadim ñoom la premier ministre Amadou Ba yebal moo ngi ne xam ne sëñ Xaadim Dia ci kër sëñ Fallu la bokk Alaaji Mbay Ja mooy baayam waaye léegi damay jël kàddu gi jox ko ki xam ne mooy sëriñ Abibu Mbàkke bu sëriñ Fanilu mi teewal sëñ Aboobu sëñ Fallu waaye sëñ Abibu xalif général kullu murit nee na comme fekk na la ngay bàyyam jëlaat na kàddoom muy kàddu sëñ Muntaxa dugal ko sa biir kàddu sëñ Abibu sëñ Fan sëriñ bi nee na su teeree ngay bàyyam sëñ Muntaxa yebal ko muy sëñ nee na kàddoom dugalaat na ko sa biir kàddu waaye noo ngi bu baax bu gaat géy dani taalibi sëñ Mbàkke soxla loo